dañ ne daa huitière officiel actuellement nii officiel ci internet bay boo marché la suba état bu ko joxoon def station boo marché le souci mooy am na ñoo xam dañuy paas boo marché boo marché boo mooy gaar bu gaar boo xam ne bii bu officiel la pour internet mais gaar bu dara suba bu leen neexoon Colobane état la gaar bii mais li Birame wax aussi dafay am solo parfois da ngay gis koo xam ne par exemple mu war a jógee fenn pour dem ba boo maraîcher paas bu muy fay taxi wala bu muy fay oto pour jëg ci mooy mooy paas bu muy paas c'est-à-dire moom mii su waree dem Thiès moo tax il faut il faut ñu yokk gaaru Thiès su ma jógee voyage ba ñëw gaaru boo maraîcher man bala maa yegg sama kër la may paas mooy gën a cher que la ma def pour jóge dëkk ak dëkk loolu loolu moo tax loolu nag moo tax kii bi yokk askan wi Dakar dafa rëy li mooy li may wax bàyyi ma bokku ci thème bi sax mais daa mu ci boole muy centre visite technique bii nekk yaraax oto yi dañ fay rang ba yow mi soo yoon nekkul doo dem waaw centre waroon am géej rek waroon na am waroon na am ko dem mais boo maraîcher mën boo maraîcher mais waroon na am yeneen yeneen gaaru yeneen gaaru yoo xam ne dañuy dépendre directement ci boo maraîcher tout fait pour que passager bi bañ a souffrir avant comme comme comme AIBD mais bu loolu amut nag hmm? AIBD seen garage bi da ngay jël foofu bus pour dem AIBD waaw dama ne bu xamul nag dañ kaa war a teg ci yoon man li ma defoon rek euh, Adama gis nga réew xam naa xam naa man wóoruma kaa jàll ci te bari na koy tàccu ci li ministre def yow avant ngay ñëw gaaru jënd da ngaa jàll ba pare yow ak commerçant nga da jaay ñu ne la jaay fo pomme de terre fukki dërëm nga jaay ko téeméer ba pare nag léegi waa xaar dama la waxee góor nag yaa ngi commencé dama lay waxee dama la jël sa saak nag léegi jël joxal ma dama nga jël sa ñëw ñu dañoo yokk paas yi ñu ne kat ministre bi indi les cars yu bees nga ne jaa jëf ministre mis jaa jëf ministre mis fàtte nga yow la nga def yow gis nga événement bu amee ñëpp a yokk même bu yow jaalu yokk man li ma d'accordoon rek waxtaan am ay instructions ñu dégagé ko. comme ni ñu waxtaan léegi éleveurs yi. waaw premier ministre bu ko neexoon. Mhm. du bàyyi premier euh, euh, tabaski mu jàll.